bismillahi rahmaani alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره جلنا أبي هريرة رضي الله عنه منه yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bokk na ci rafetuk lislaamu nit ki mu bàyyi lépp loo xam ne amulu ko njariñ hadis bi hadis bu rafet la Tirmisi nettali na ko ak ñeneen ñu bokkut ak yi suñu hadisu tey bokk ci hadis yi nga xam ne eh, seeni baat néew na eh, hadis bi it gàtt na waaye solo si bari na lool maxnaa yi yi mu làmboo it bari na lool xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom da ko jox li ñuy wax jawaamiul kalim te mooy nga mën a wax ay maana yu ama am solo ci ay baat yu gàtt ba noppi leer naññ loolu nag sunu hadiisu tey bii ci la bokk donte ne wax yonent bi sallallahu alayhi lépp noonu la mel waaye hadis bii dafa bokk ci yi nga xam ne hadis yu gàtt la ba noppi làmboo maana yu baree bari kon suñu addis liñ ciy dégge mooy li nga xam ne mooy rafetal lislaamu nit ki mu ittewoo loo xam ne moo ko amal njariñ ci mbirum diineem ak mbirum àddunaam waaye lépp loo xam ne amalu ko njariñ nag mu wan ko gannaaw ci xeeti jëf wala ay wax ak lu mën a doon yonente bi sallallahu alayhi wa mas naa dénk abi zar ba ko abi di laaj ne ko lan moo nekk ca téere Ibrahima ya alayhi salaam yonente bi ne ko téere yi day ay misaal moo ca nekk lépp ay misaal la waaye bokk na ci misaal yooyee mu ne ko bokk na ci misaal yi nga xam ne ma nga ca suxufu Ibrahima ya yow buur bi yow mi nga xam ne dangaa waru na nga xam ne yónni wu ma la ngir nga dajale ay alal waaye dama laa yónni ngir nga ñi nga xam ne dañ leen a néewal doole tooñ leen nga fexe ba delloo leen seeni àq ndax kat àqi ku ñu tooñ moom duma ko bàyyi mukk donte sax ne kooku ab yéefar la mu ne ko bokk na ci leneen ci tiiri ibrahima ya mu ne ko ala al aaqili ma lam yakun maxluban ala xaqlihi an yakuna lahu arbacu saat saatun yunaaji fiha rabba wa saatun yatafakkaru fi sunci illahi taala wa saatun yuxaddisu fiha nafsa wa saatun yaxlu bi dil jalaali wal ikram mu ne ko day ki nga xam ne am na xel tam xelam kenn notu ko maanaam mi nga ànd ak xelam daal nee na war naa am ñeenti waxtu yoo xam ne wenn waxtu wa dafay diyaale ak boroomam ci jàng alquran ci tudd yàlla ci waar nit ñi ak lu mel noonu wa saatun yatafakkaru fii sunillah ak waxtu woo xam ne dacay toog di xalaat nag ci mbindeefi yàlla yi diggante asamaan yeeg suuf yeeg géej yeeg montagne yeeg jant weer ak ak mbindeef yi nga xam ne euh, suñu borom moo ko bind nit ki war caa mën a waaroo ma am waxtu woo xam ne yooyu lay xalaat wa saatun yataxaddasu yuxaddisu fiha nafsa wa saatun yuxaddisu fiha nafsa ak waxtu woo xam ne nag dafay wéet ak boppam di xalaat ci boppam di delluwaat ci boppam ndax borom bi tabaraka wa taala nee na wa fi anfusikum afala tubsiruun wa saatun yaxlu bi dil jalaali wal ikram ak weneen waxtu woo xam ne nag moom diggam ma boroomam képp lay doon day wéet ak boroomam di xalaat ci boroomam mu ne wa inna tilka saaata awnun lahu ala saat mu ne koy waxtu yooyu day da koy dimbali ci yeneen waxtu yi mu ne ba tey nekk na ca téere yi ibrahima ya war na ci ki nga xam ne ànd naa kom xelam li feeg notuñu ko cim xelam mu bañ a doon koo xam ne day jëfal lu dul ñetti waxtu yi maanaam day jëfal lu dul yetti mbir yi lépp lu muy jëf daal na yetti mbir yi tax benn tazawudun li ab yóbbal ngir fam jëm bu ëllëgee te mooy yóbbal bu jëm bis penc wala boog wa munatun li maashin wala lu mën a dunde fii ci àdduna wa ladatun fi gayri mahram wala bànneex boo xam ne du nekk ci lu araam man daal nit ki daal na fexe ba buy yëngu nday yëngu ci yett yii rek lu ko amal njariñ alaaxira wala lu mu mën a dund fii ci àdduna wala lu ko lu ko jox banneex fii ci àdduna ci loo xam ne lu dagan la ndax yooyu mooy li ko amal njariñ waaye lu lu ko amalu njariñ lu nekk na ko wan gannaaw mu ne bi mu waxee loolu abi zar na ko bi abi anta wa ummi fa maa kaana fi suhufi Muusa ana lan moo nekk ca téere Muusa ya ndax lii ma ko doon wax kat ci téere Ibrahima la nekk yonente bi ne ko kaanat ibaran kullaha mu ne ko day lépp ay waaraate la nda ne téere Moussa yi lépp ay waaraate la waaye kaana fiiha bokk na ca la ca nekk ajaban liman ayqana bin naar kayfa yadhak man de yéem naa koo xam ne wóor na ko na sawara am na naka lay talee reetaan wa ajaban liman ayqana bil mawti kayfa yafran yéem naa koo xam ne wóor na ko ne dee day dikk boo liggéey naka lay kontaanee ga bëgg waa wa ajaban liman ra ad dunya wa taqallubiha bi ahliha wa huwa yatma'inu ilayha yéem naa ki nga xam ne gis na àdduna ak ni muy wëlbatikook ñoñam naka la ci ànd xel mu dal xam nga ne àdduna léeg lekk mu may la wér mu dikk jox la feebar léeg-léeg mu la alal léeg mu dikk xañ la ko bu la joxee dund bu ëllëgee mu faat la àdduna amut wenn meloo muy jëflanteeg nit ki lu may da koy soppiwaat day wëlbatiku rek mu ne ki xamee àdduna noonu nan la ci ànd xel mu dal loolu bokk na ci leneen ci téere Muusaa ya wa ajaban liman ayqana bil qadar summa huwa yaxdab yéem naa it ki nga xam ne wóor na ko ne lépp lu am suñ borom moo ko dogal ba nepp muy mer mu ne ko yéem nay it ki nga xam ne ayqana bil xisaabi gadan wa huwa laa mal ki nga xam ne wóor na ko ne bu ëllëgee bu faatoo dañ koy réglé ba noppi jëfut kon kooku daa war a jëf góor góorlu lii de bokk na ci leneen ci téere Muusaa ya mu abu zar daal laaja yonente bi ne bi abi wa ummi hal baqi mimma kaana fii suhufihima shay mu ne ko ndax bokk na ca la des ca seen téere ya dara maanaam ndax am na loo ca bàyyi xaala naa xam ko aba zar daal ne ko ma nga ca téere yooyu day man tazakka wa dakara sma rabbihi fa salla bal tu'thiruuna alxayaata addunya wal axiratu xayrun wa abqa inna hada la fi suhufi al mu ne ko ma nga ca téere ya xad aflaha man tazakka ki nga xam ne sellal na bakkanam kooku day texe na wa zakara ma rabbihi fa salla mu tudd boroomam fàttali ko am daal di julli daal di ne baltu siroona al xayaata dunya wal axiratu xayrun wa abqa nit ñi day dañuy jël dundu àdduna di ko gënal te fekk ne àllaaxira moo gën te it moo gën a des inna haada la fi suhufil ula lii day ma nga ca téere yu njëkk ya te mooy téere ibrahima yooyu ak téere bi mu waxee loolu nag abi sar daat ne ko xultu bi abi wa ummi aw nii mu ne ko eh, dénk ma yonente bi na ko ausika bi taqwallahi fa innaha rasu amrika kulli maa ngi lay dénk ragal yàlla ndax loolu kat mooy sa capitalu mbir yëpp mooy sa bopp alal kon nañ ci jàpp bu baax a baax qultu zidni abazar ne ko dolli ma qaala alayka bi tilawati alquran waskurillaha kathiran fa innahu yadkuruka fi sama maa ngi lay dénk ngay jàng alquran lu baree bari te ngay tudd yàlla lu bari su ko defee yàlla dana la tudd ci asamaan qultu zidni abi zar nee ma ne ko dolli ma qaala alayka bil jihaad maa ngi lay dénk it ngay góorgóor di def jihaad fa innahu rabaniyatul muminin mooy li ñuy wax ak rabaniyata mooy ak labbewu ci jullit ñi qultu zidni ma ne ko dolli ma qaala alayka bi sumti fa innahu mutaradatun li shayatini ank maa ngi lay dénk ngay faral di noppi bul baril ay wax ndax loolu dafa lay dàqal seytaane wa awnun laka ala amri diinika tey def lay dimbalit sa mbirum diine xultu zidni nee na ma ne ko dolli ma qaala qulil xaqa walaw kaana murran mu ne ma del wax dëgg ak lu mu metti metti waaye yow na nga taxaw di wax dëgg doon sax dëgg sa kaw lay dal xultu ka qaala laa law fillaahi lawmata laaim mu ne ko bu la jàpp mukk ci sa diggante ak sa boroom jenn yeddi aji yedd maanaam daal li nga li la sa boroom sant nga war koo def wala lim la tere nga war koo bàyyi bu la kenn mën a yedd ba tax nga bàyyi ko wala nga def loo war a def xultu sidni qaala sil rahimak wa in qataawuk ma ne ko dolli ma mu ne ma del jokk sag bokk donte sax dañ lay dog donte say bokk dañ lay dog yow dee leen jokk xultu sidni ma ne ko dolli ma qaala mu ne ma bi xasabi mriin min acharri maa yajhalu min nafsi wa yatakallafu maa laa nii mu ne ko doy na sëkk nit ki ak bon mu réere ay bi boppam réere boppam ba noppi di jéem a toggoo loo xam ne kenn tegu ko ko nag waaye di jéem a xam loo xam ne amalu ko benn njariñ mu ne ko yaa aba zar laa aqlaka tadbiir wala waraxakal kaffi wala xusna ka xusnil xuluq mu ne ko yow aba zar xam ne day xel amul menn xel moo xam ne mel na ne di def li ñuy wax tadbiir tadbiir nag mooy mépp mbir mooy dugg nga xool ndax amal na la njariñ wala amalu la njariñ njëkk nga cay dugg waaye nga xool ba xam boo ci duggee lan mooy nekk ak mujjam lépp nga di ko settantal bu baax bala nga ciy dugg mu ne ko amul menn xel mu mel noonu laa xalakata de biir wala waraakal kaf fii amul genn sàmm gu mel ne fegu fegu mooy ñàkk dugg ci lépp loo xam ne amalu la njariñ nga wan ko gannaaw fegu ca fegu fekk ca sa bopp wala xas xusna ka xusnal xuluq mu ne ko amul dara lu rafet ba mel ne rafet jikko rafet jikko daal moom moo gën rafet lépp kon suñu addisu tey bi gàtt na lool waaye maana yi ak solo yi bari na lool waaye tënk bi daal mooy nit ki lépp lu muy dugg na xool la ko cay jariñ adduna ak alaaxira mu dugg ca loo xam ne amalu ko njariñ àdduna amalu ko njariñ alaaxira mu bañ caa dugg hada wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم jëlee nañ ci abi xamsata mooy dàkkantalam turam di anas ibnu malik radiallahu anhu mu nekkoon xaadimu rasul doon mbindaaram yonente bi salallahu alayhi wa sallam wala doon liggéeykatu yonente bi salallahu alayhi wa xam ngeen ne bi yonente bi salallahu alayhi wa ñëwee madina eh, gàddaaye makka ñëw madina ñu bari ci waa madina dañoo ñëw di ko indil ay kado waaye kii di yaay anas nag doon koo xam ne moom amul woon lu mu andi mu daal di wammat doomam jii di anas ibnu malik mu nekk xale bu ndaw mu andil ko yonente bi sallallahu alayhi wa eh, ko koy jox ne ko mu di la liggéeyal di la dimbali sa liggéeyu kër mu doon liggéeyal yonente bi salaa sallam moo tax mu amee dàkkantal wi di xaadimu rasul anas moomu moo jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne laa yuminu ahadukum kenn ci yéen ngëm yàllaam du mat xataa yuxibba li axiihi mate mu bëggal mbokkam maa yuxibbu li nafsihi kem li mu bëggal boppam rawaahul Buxaari wa muslim addis bi yu génnee na ko muslim génne na ko kon addis la boo xam ne addis bu wér la waaye addis bu dëgër la suñu hadisu tey di hadis bu am solo di wax jëm ci mbokkook jullit yi ak bennook jullit yi ndax yonent bi sallallahu alayhi ba waxee ne ngëm yàlla mënta mat kon loolu day tekki ne ngir ngëm yàlla ak nit ki mat dafay bëggal boppam dafay bëggal mbokkam li mu bëggal boppam kan mooy mbokkam dañuy njëkk a yan bi ci moom gi muy mboolem nit ñi nga xam ne jullit beeg yéefar bi ñëpp dañ ciy dugg su boobaa ni mu yéenee boppam nekk ab jullit dugg ci lislaam na ko yéene it yéefar bi nga xam ne duggal ko ci lislaam moo tax danañ di sopp nit ki di ñaanal yéefar yi hidaaya maanaam suñu borom gindi leen sa mbokk mi nga am mu nekk yéefar nga di ko ñaanal suñu borom gindi ko loolu mooy li ci njëkk ba ci topp nag ñu indi ko ci entre jullit ak jullit ndax dëgg dëggi mbokk nag mooy mbokkum jullit alquran nee na innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum jullit ni ñoom ñooy ay mbokk kon na ngeen yéwénal seen mbokk mbokk moom di sa mbokkum jullit nag li nga bëggal sa bopp loolu nga koy bëggal ngir sa gëm yàlla door a mat jël leen ci hadis bu wér boo xam ne abi Moussa moo ko nettali jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonente bi nee na al muminu lil mumini kal bunyaani yashuddu baaduhu baada wa shabaka na asaabihi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa na jullit ak mbokkum jullitam dafa war a mel na benn tabax benn miir ni muy jàppaloo nga xam ne birig bu ci nakk dee dëgëral moroom ma birig boo ci dindi rek pax dafay daal di am kon birig yi jàppaloo gi ñuy jàppaloo mooy tax tabax bi mën a taxaw mu ne yonent bi sallallahu alayhi bi mu waxee loolu dafa rabbale ay baaraamam maanaam wanne ne jullit ñi nii la war a jàppaloo ni nga xam ne noonu la di jàppaloo ñëw na ci beneen xadis ci musnadu imam ahmad xadis yu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne lil al muminu min ahli imaani bi manzilati rasi min jasad ya'lamu almu'minu li ahli al imaani kama ya'lamu al jasadu li ma fi rasi nee na ab jullit ni mu war a mel ci ñi nga xam ne gëm nañu yàlla te mooy mbokki jullitam yi ne dafa mel na ni bopp mel ci yaram bi manzilati rasi min al jasad ni bopp mel ci yaram nee na ya'lamu almu'minu li ahli al imaan kama ya'lamu al jasadu li ma fi ni nga xamante ne bopp bu mettee yaram yëpp koy yëg nga xam ne borom day tëdd léeg-léeg sax yaram yépp day maase tàng ngir mettitu bopp bi naka noonu tamit jullit bi lépp loo xam ne laal na mbokkum jullitam rek su boobaa loola dafa war a yëg mu nekk metti ci moom kon daal jullit bi ngir ngëm yàlla mat moom ak mbokkum jullitam day mel ne benn lañu benn jëmm la ñuy doon nga xam ne lu ko mett lu lu metti moroom rek daf koy metti waaye tamit lépp lu mu bëggal boppam ci aw yiw ci lu baax rek daf koy bëggal mbokkum jullitam moo tax ali saydna ali ibn abi talib radiallahu anhu nee na laa yakunu sadiqu sadiqan xatta yaxfada axaahu fi thalaasin fi nakbatihi wa gaybatihi wa wafaatihi ali ibn abi talib radiallahu anhu nee na ab xarit te mooy sa mbokk ab xarit nee na du nekk dëgg-dëgg xarit mukk lu may mu wattul mbokkam yetti mbir ñetti tolluwaay bu njëkk bi fii nakbatihi mooy bu nekkee ci jafe-jafe ak i tolof-tolof ay métit métit sa xarit dëgg dëgg dëgg dëgg sa mbokk dëgg dëgg dëgg bala ngaa xam ne kii mbokk la boo nekkee ci jafe-jafe ci nga koy door a xam nag ca booba la lay gën a jàppale ca la lay gën a yëg ca la lay gën a toppatoo ca la lay gën a bàyyi xel ca waxtu woowu la lay gën a bëgg waaye wa xaybatihi ak boo fàddoo boo fàddoo du wax ci yow genn kàddu gu ñaaw genn kàddu gu ñagas du teg ci sa der dara loo xam ne boo teewoon du ko ca teg waaye woo faatihi ak gannaaw boo faatoo mooy boo ko wanee gannaaw lépp lu mu waroon a taxawee ci jamono lu mu doon taxawee si diggante ak moom jamono bi ngay dund soo wanee gannaaw da koy gën a matal kon faddu gi nga ko faddu du tax mukk mu deltu gannaaw ci mbir kii mooy dëgg-dëgg mbokk bi nga nekkee ci jafe-jafe du ko xàmmee ak bi nga nekkee ci ak yomb-yomb maanaam bi nga nekkee ci di dund lu neex di dund ba neex am jàmm am alal am wér-gi-yaram amum koom di dund ak moom du ko xàmmee boo dee dund ay jafe-jafe ñàkk wéradi tolluwaay yooyu yëpp nim taxawee ci tolluwaay bii noonu la taxawee ci tolluwaay bee naka noonu it boo teewee li mu lay wax nga di ko dégg boo ko wanee gannaaw it loolu lay wax ci yow naka noonu tamit boo dee dund ni muy jëflante yow boo faatoo yot noonu la lay bàyyee xel lii mooy dëgg-dëggi mbokk kon sunu addi su tey bi am na solo trop di soññee rek ci jullit bi ngir mu ngëm yàlla mën a mat li mu yéene boppam mu yéene ko mbokkum julitam laa yuminu ahadukum xatta yuxiba li axiihi maa yuxibu li nafsihi rawahu albuxaari wa muslim hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xan ibni mas'uudin radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaxillu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah illa bi ixda thalathin athay bi zani wannafsi binnafsi wattaariki li diinihi almufaariqi liljamaaca rawahu lbuxaariyu wa muslim jële nañ ci abdullahi ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yaxillu dëganul damum ri in muslimin maanaam tuur dereti cam soo xam ne ab julit la julit boo xam ne yashhadu an laa ilaha illa nangu naa seede ne amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg jaamu ga di jariñ ñàkk jaamu di lor ku dul yàlla boo xam ne seede ne loolu wa anni rasulullah te man mii muhammad man la yàlla yónni jullit boobu day dëgëral ñuy tuur dara illaa bi ihda salaasin lu may ci yetti mbir yi ba ca njëkk a say bi zaani jeeg boo xam ne dafa njaaloo wan nafsi bi nafsi ak ku rey bakkan ñu fayu ci moom rayaat bakkanam wa taariki li diinihi al mufaariqi lil jamaa ak koo xam ne dafa murtat bàyyi diineem taqali mbooloo mi addis bi Buxaari nettali na ko muslim nettali na ko mbokki jullit ñi addis bi addis bu am solo la addis la boo xam ne gannaaw bu nit ki nekkee ab jullit ba noppi daf koy sàmmal deratam daf koy sàmmal bakkanam waaye tamit daf koy sàmmal askanam waaye tamit daf koy sàmmal diineem mooy daf koy sàmmal askanam xam nga ne ki njëkk ci kiñ war a rey fii ci addis bi mooy asayibu zayni jeeg bi nga xam ne dafa njaaloo kan mooy ab jeeg mooy koo xam ne mas naa dugg ci sëy bu wér ba joteek borom këram kooku de bis bu defetee li ñuy wax njaaloo la ca lislaam atte mooy dañ ko war a rey su fekkente ne am nañ imaam joo xam ne dafay wéyal atteb sharia kon bu nekkee ci réew moo xam ne dañ fay atte lislaam am imaam joo xam ne dafay wéyal atteb sharia jigéen joo xam ne dugg na ci sëy sëy bu wér ba joteeg boroom këram ginnaaw ga mu njaaloo donte waxtu wi muy njaaloo sax nekkatul ci sëy su boobaa lay ab atteem mooy dañ koy rey dañ koy rajmu dañ koy dugal ci pax di ko sànni xeer ba mu faatu wan nafsu bi nafsi bu dee koo xam ne it dafa rey bakkan ñu rey ko ngir sàmmal ko bakkanam maanaam ngir sàmmali jullit ñi seen bakkan loolu moo tax ñu indi xisaas suñ borom nee na walakum fil xisaasi xayaatuñ yaa ulil albaab neen yéen ñi nga xam ne am ngeen xel fayantoo gi nga xam ne moom lañuy ñuy fayantoo ci ku rey ñu rey la loolu da ngeen ciy jëlee ak dund loolu da leen di may ak dund day tax kenn dootu rey moo tax suñu ne wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisaas suñ borom ne dañoo dogal ci yéen faratal ko képp koo xam ne dafa rey bakkan dañoo war a rey bakkanam loolu mooy layab àtteem koo xam ne dafa fukk bët ñu fukk bëtam koo xam ne dafa njoof bakkan ñu njoof bakkanam koo xam ne dafa dagg nopp ñu dagg noppam koo xam ne dafa damm bëñ wala mu foq bañ ñu damm bañam naka noonu tamit cër yëpp dañ koy nattale ku daggub loxo ñu dagg sab loxo ku jam ñu natt jam-jam ba jam la jam-jam bu tol noonu loolu nag da di may ak dund naka noonu keneen ku ñu war a rey mooy koo xam ne dafa mortat ki bokk ci biir jullit ñi ba xam lu bari seeni zakare gannaaw gi mu murtat génnaat ci lislaam kookoy dañ ko war a rey xadis bi di hadis bu wér boo xam ne Buxaari ak Muslim ku ci ne génne na ko muy hadis bu dëgër kon ci ak wér buñ seetloo hadis bi dañu gis ne yetti mbir la ngir sàmmal ko jullit ñi la ci mooy seen askan dafay sàmmal jullit ñi seen askan ndax xam ngeen ne buntum njaaloo buñ ci tegul woon gétanub rey nga xam ne kum neex def ko su boobaa nit ñi danañ jaxasoo ci jaxasin woo xam ne wu ñaaw a ñaaw lay doon ñu dem ba dootuñu xàmmee askan yi dootuñu xam ku jur diw ak diw lu mbokk ak diw ak diw kuy mbokkam ci wàllug baayam kenn du ko xam ndax njaaloo goo xam ne dañuy dem ba mel ne ay bahima lool na su boobaa dafa ñaaw lool ci ay doomu aadama ci humanité loolu dafa ñaaw lool waaye naka noonu tamit wa nafs bi nafsi bakkan ñu fayee ko bakkan su fekkente ne dañoo ubbi buntub ku rey dara du la ci fekk su boobaa la muy jur mooy rey gu bari rek ndax doomu aadama moom bew daf koo yomb te képp kum jàpp ne rek maanaam da ngay yàq dara ci ak dundam moo xam ne ak gis-gis ba mu ci mën a am rek moom dafa da daal di profité daal di lay faagaagal ngir yow dootoo dund waaye nag su xamee ne moom bu la rayee bakkanu boppam ci boppam dañ koy rey ah kon su boobaa ngir sàmm bakkanu boppam dana tax du rey kenn su ko fee ñu sàmm bakkan yëpp wa taariki li diinihi al mufaariqi li jamaa ki nga xam ne dafa murtat kooku moom itam ku mataray la ngir sàmmal nit ñi seen diine ndax diine dañ ko def fowukaay boo xam ne comme ne bu la neexee dugg bu la neexee génn ki duggagul nag kenn du ko forcé kenn du ko forcé ci ne dañ koy rey far force daa war a dugg ci diine ji wala ñu rey ko lu may muy koo xam ne dafay gàllankoor lislaam di gàllankoor jullit ñi ci seen boote woote wala muy dal ci kaw kaw jullit ñi wala lu ko nuru lu dul loolu kenn du ko forcé borom bi neen laa ikraha fi diin xat tabayyana rushdu min al kon suñu addisu tey addis la boo xam ne addis boo ama am solo la boo xam ne dafay sàmmal jullit ñi seen yetti mbir yooyu te mooy seen askan ak seen eh, bakkan ak seen diine hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala wa sahbihi ajmain bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره wa man kaana yuminu billahi wal yawmi al axiri fal yukrim dayfahu rawahu albuxaariyu wa muslim jële nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu jële ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ne yonente bi nee na képp koo xam ne gëm na yàlla gëmbis bu mujj ba na wax aw yiw te mu noppi képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bu mujj ba nay teral dëkkandoom képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bis bu mujj ba nay teral ganam hadis bi dee hadis bu dëgër ci ak wér Buxaari ak Muslim kenn ku ci ne génnee ko mbokk jullit yi ana lan la ñuy ci hadis bi la ci njëkk mooy mooy ndikaloo nit ki gàkki làmmiñ xam nga ne làmmiñ lu mën a yóbbee nit ki ay musiba la moo tax imaam Shaafi wax ne bokk na ci li ñuy ci hadis bi nit ki balaa muy wax na xalaat bu baax ca la muy wax njëkk mu koy wax boo xamee ne lii bu ko waxee wax ji dana am njariñ mu wax ko boo xamee ne wax ji dana am njariñ waaye lor moo cay topp su boobaa mu bañ koo wax boo xamee ne wax ji du am njariñ ba tey mu bañ koo wax boo amee sikk sàkk ci ndax dana am njariñ wala du am njariñ ba tay mu bañ koo wax kon daal wa bi tàmbalikaay bi dafay sàmmloo nit ki aw làmmiñam ci lépp loo xam ne lu muy wax la su ko defee nag muy wax yiw te wax yiw la si jiitu jàng alxuraan ak tudd yàlla digle lu baax tere lu bon yéwénal diggante ñaar ñoo xam ne dañoo am jafe-jafe maanaam ñaar diggante boo xam ne dafa yàqu nga fexe ba defaree ko ak lu mel noonu borom bi nee na laa xayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna naas wa man yafal dalika btigaa mardatillahi fa safa nutihi ajran azima nee na aw yiw nekkul ci mboolem seeni déyaale lu may koo xam ne dafay digle lu baax dafay digle sarax wala muy digle lu baax wala muy tere lu bon wala muy yéwénal diggante ñaar ñoo yàqonte ak lu mel noonu lu dul loolu rek aw yiw nekku ca loolu nag ku ko def sàkk ngërëmal yàlla suñ borom ne dinaa la jox sab yool ba mat sëkk yool bu mat bu mag kon li jiitu ci xadis bi mooy fexe ba sàmm saw làmmiñ ci wax lu baax waaye boo waxee lu baax ba noppi nag nga noppi nag bañ wax leneen bañ a wax safaan bokk na ci li ñuy ci xadis bi xam le àq dëkkandoo waaye ak di ci soññee xam le àq dëkkandoo ak di ci soññee ngir nit ki di rafetal ci ay dëkkandoom bokk na ci nag ci rafetal say dëkkandoo sa dëkkandoo bu la lebee nga lebal ko bu sàkkoo ci yow nga dimbali ko nga dimbali ko bu ko musiba dalee nga jaale ko su faatulee nga topp ak ak taddam moom ci boppam su faatoo yit nga topp ko waaye tamit boo jëndee lu mel ne fur wi wala yu mel noonu boo ko ci mënee jox nga jox ko ci hadiya soo ko mënul nga fexe ba nëbb ko bañ koo gis ndax noonu it bu nangu say xale di génnee yu mel noonu ñu di ko gis di ci teg seen bët te duñ ci mën a jot waaye sax boo toggee loo xam ne dafay am xet nga yokk ñeex ma fexe ba eh, yàkkal ko ci loolu yëpp dafa bokk ci rafetal ci rafetal ci dëkkandoo am na sax ñu wax ne loolu xadis la donte dañoo wax ne xadis bi xadis bu doyadi la bokk na ci li ñuy jànge ci xadis bi teral gan teral gan nag la ca jiitu mooy kanam gu belli bu gan gi dee wàcc maanaam kanam gu naat gu ànd ak mbégte gu yaatu loolu bokk na ci li ñuy terale gan loolu moo ci jiitu sax la ci topp mooy waxtaan wu teey waxtaan wu baax wu neex te bañ a nekk di fàttaliku ay jafe-jafe yu ngeen amoon démb wala yu ko nuru xeeti waxtaan yu mel noonu ba tey baaxut wala waxtaan woo xam ne da ci yëg ne danga nga koo xeeb wala da nga koo suufeel wala da nga koo wàccee wala da nga jëpp ci gana gim la gana si wala yu mel noonu xeeti wax yooyu yëpp nga di ko moytu kon di teeyal sa waxtaan ak moom la ci topp nag mooy lépp loo xam ne am nga ko nag ci xeeti bernde loo xam ne jàppandi na nga di ko ca berndeel yaatal ko ca kër ga bam yëg ne fi mu nekk moom ak këram benn la loolu bokk na ci lii taral gan kon daal xadis bi moom itam xadis bu ama am solo la euh, mu nuy jàngal yetti mbir yoo xam ne lu ci ne am na solo lool euh, la ca jiitu muy sàmm saw làmmiñ fexe ba doo ca wax naka sudul noonu waaye tamit nga di ca wax nag lu baax ngay wax lu baax di jàng alquran di tudd yàlla di digle lu baax di tere lu bon di yéwénal diggante yu yàqu di def mboolem yu baax yi waaye nag lépp loo xam ne safaan la nga di ca noppi nga xam ne balaa ngay wax da ngay xalaat bu baax li ngay bëgg wax boo ko waxee ba noppi lan moo ci topp su fekkente ne njariñu kese la nga wax ko bu dee njariñ lu ànd ak lor nga peese njariñ la ak lor ja lan moo ci ëpp bu lor ja ëppee nga bàyyi ko boo amee sikk sàkk ci ndax dana am njariñ wala ndax dana am lor boo ci amee sikk sàkk yëpp ba tey nga bàyyi ko la ci topp loo xam ne hadis bi jàngal nañu ko it mooy rafetal ci dëkkandoo xam ngeen ne dëkkandoo yonente bi salaa nee na maa zaala jibril yusini bil jaari xatta zanantu annahu say wari say warisuhu nee na day jibril masul dañ di ma dénk dëkkandoo àqi dëkkandoo di ma ko dënk di ma ko dënk ba mujj ma jort na sax dëkkandoo àqam àgg na ci bu mbokkum dëkkandoom faatoo war na koo doon loolu day wax rek maanaam àq joo xam ne dëkkandoo ameel nga ko àq ju rëy rëy rëy ba tax sax mu mel ne bu faatoon war naa mën a donn ci eh, àq joo ko ameel rek naka noon tin bokk loo xam ne addis bi jàngal nañu ko mooy teral gan teral gan it di lu jara bàyyi xel bu baax a baax loo xam ne addis bi mi ngi ciy soññee hada wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain